antara bi ahousubillahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi suivre seen site internet bi di 24 actu ñoo desiwaat ak yéen ci waxi sëriñ Tuubaa yi sëriñ Muusaa Ka radiallahu taala anhu mas naa ànd ak ñaar ñoo xam ne dañoo bindoon kaamilu alxuraanul karim bëgg koo jox sëriñ Tuubaa ba ñu agsee mbooloo mi bari lool léeg-léeg mu yëngatu ba ñu yaakaar ne day génn mu defaat teg ba mu génnee tàllal loxoom bu tedd ba wax ne dama ne ku amewul alxuraan bu mu agsi mbooloo mépp na teg mu ne nañu xeddali boroom alxuraan yi ñu agsi ñu daal di def aw yoon bi ñu jubee Serigne Touba ñoom ñett da leen gàttandu këf kaamil taf ko cib dënnam ba mu amub diir am ku dugg ca biir indil ko ab der mu ne xëkasa daal di teg kaamil ca der ba tekki ab dënnam ba mu amub diir mu jug taxaw tàllal baaraam bu tedd ba wax ne koo xam ne bëgg nga saa soo xëyee di xëy ci sunub tool dinu summikul boo xëyatee xëyal ci alxuraan daa di koy wax ñetti yoon daa di wax ne tabaraka allazi bi yadihi l mulk wa huwa ala kulli sayin xadir dugg ca biir ñu toog tuuti am ku ne sëriñ bi fàttu na ba subaati sëriñ tuuba xaadalahu laahu maxtaara lahu nee na nit ñi njariñ la ñuy wut ñu mën a jëm te njariñ man maa ko amee duma ko def ci alxuraan du ma ko def ci julli du ko def ci werd ci sama mbind mii laa koy def ku ma bañ waccal ma ko sëriñ àll sey njaay radiallahu taala anhu mas naa siyaasi sëriñ bi ca njaareem sëriñ bi ne cay ndaxam saa boroom doy na waar moom mii moos jekk naa ba mu guddi dendumaak góor dendumaak jigéen ndara yàlla saa boroom te xalam mbiram ak mbirum ahmadu kan nee nañu mag ña fa toogoon seen dënn rëcc sëriñ bi ne waawaaw moom mii ku ñuy wax sëriñ tuubaa sugu sëriñ bamba sugu ak sëriñ muudu tasrif sugu ginnaaw bi sëriñ jiiri waa radiallahu taala anhu wàccee ab liggéey dañoo ànd fekk sëriñ bi ca njaareem buum ne leen bu ngeen demee na ngeen ko jox ma sàmba bu ngeen demee ba ca diggante kër ma sàmba ak kër ñang mu nattal leen fa nangami meetar ngeen def fa kër li ma ci jublu mooy Moodu Faajama ñang dama dégg ne bënn na foofee ab teen Moodu mustafa ñu wax ma ne bënn na foofee ab teen ma xam ne bu ngeen nekkee ci diggante boobee du ngeen mar bu ngeen demee ngeen toog fa te bu leen mar wa dàq ndax li des ci àdduna laaj naa ko saa boroom te tuubaa la ma koy joxe wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu